méthode bi ñu jël méthode bu baax la ci walu liggéey bi nga xamné son excellence le président Macky Sall euh, jox nañu ko ndax bu fekkee né dafa né financement état du Sénégal mu ngi jël koomam dem également bitim réew wuti fa koom boo xam daf ko wara rembourser lool yépp mu dajalé ko jagleel ko askan bi euh, japp na ne war nañ ci mëna am résultat d'abord koom boobu ñuy jël mu yegg ci ñi mu war yegg mais également bu yeggee ci ñom mu produire résultat yi ñu xaar ci anam bobu nak amna ñaari euh, jëf yo xam taxawal na bi ci njëkk moy économie sociale solidaire mu nekk modèle bo xam ne bu ko nit ñi xamé xuus ci dugg ci bu baax ñun dinañ wax né ku ñu financé te kuréel bu ñu financé te sa problème dootul nekk ndax fay nga wala fayoo sa problème dootul nekk ndax ah dinaa mën a rembourser wala duma mën a rembourser mais sa problème dina nekk ci di nga dund am loo dundal sa njaboot ba pare di nga am loo épargné parce que tey ñu bëri ñi ngi ci entrepreneuriat mais euh, li ñuy entreprendre du leen permettre ñu def li ñuy wax épargne tey ak modèle économie sociale solidaire jàpp nañ ne épargne boobu mën na am agrandissement wu activité bi mën na am benen bi également moy euh, fekk nañ fi ay yenn contentieux yo xamné chaîne de valeur bi ñuy wo acteurs yi diko def ministère bi aussi nekk ci ndax bu ñuy déplacer wu di dem ci population yi dañuy seet waa OQSF e set DRS set APSFD donc contentieux bi ñu fi wax acteurs yi nga xamné ñoko ñoo war ko régler ñëpp dajé fi

jotee ci financement ci conditions yu yomb ci conditions yo xamné dina leen permettre comme biñu soxla ñu mën ci jot lolu nak euh, faw ñuy waxtaan comme ni di gis difficulté yi di wut ay solution di avancer motax CRD bi ñu koy rafetlu ñoom gouverneur préfet ak sous-préfet taxaw nañ taxaw bu am solo acteurs yëpp représenté nañ structure de l'état chef de service te liñ fii bàyyi mooy dinañu teg comité en rapport avec l'ARD Nous avons signé une convention ak nous ñu mën assurer suivi bi ndax Louga fekk nañ fi ñu donc li des rek 200 millions yi leen également pour nous mën ci tàmbali expérimenter modèle économie sociale solidaire en amont ak administration ak yeneen kuréel ñu xool naka la ñuy defee suivi